fee ñu ko denc jàkk sëñ Tuubaa woon maam Cheikh Ibrahima Fall ci kanamu jumaa ji ci armeel yi fee ci biti buy texe ci armeel yi loolu lu wér laa ci am ndax bi mu wàcc ab liggéey sëñ Bassirou Mbacké yàlla nañ ko yàlla fayal moo moo indi sëñ Tuubaa Tuubaa ci poojub sëñ Bassirou sëñ Bassirou nga toog poojub Baye Cheikh ña nga ci la toog ci la ci la ci la geganu moom maam si Ibra Fall sëñ Basiru Mbàkke toog maam si Ibra Fall wàcc ab liggéey ci kanamu sëñ Basiru sëñ Basiru topp toog wax ko sëñ Moodu Saa Mbàkke mu indiloo ko ko Tuubaa mu indi ko Tuubaa fanaanal ko sëñ Fallu ba ñu xëyee ba daje fa ñoom li ñu bëggan ni ñu miine diggante sëñ Tuubaa ak maam si Ibra Fall dañ ko bëgg indi ci sëriñ bi waaye si Ibra Fall nangóot dañ ko bëgg indi ci barab bu sëñ bi waaye sëñ Mandumbe Mbàkke doon wëlëreem moo wax ne Cheikh Fall de noon na ma ànd nañu ci armeel yee mu dagg ak garab gu ñu dimb samp ko ci